parce que l'autre, fait grave. Sénégal bu a une année de guerre civile kenn dootu fay salaire. c'est ça la réalité. Bagbo a na 8 ans de guerre civile. trésorerie Côte d'Ivoire crise économique musulman Côte d'Ivoire. L'autre, dafa aussi cibler ay postes ni directeur des impôts directeur des domaines directeur des douanes Madame les plus jëm ci appel d'offres. Il def. jël un cabinet international Les ivoiriens ils ont un na ils indi un concours. mu tan les meilleurs profits ku nek mu signé ak yow contrat né la yow d'ici temps dama bëgg nga duggal tel milliard d'ici temps dama bëgg nga tegal milliard bak bo bi mu ñëw prospérité bi Côte d'Ivoire am. Hmm. musu koo am lolu moy lan. xereñteef mo yor réew. bu nax suñu bop politique ak wax ak ak trop mais yebul fara dara am réew. Sénégal dañu tollu fo xamni ni dañu wara jël poste stratégique lu jëm ci agriculture lu jëm ci élevage. lu jëm ci développement maanaam fépp fu xarañteef war a def dañoo war a toll ci appel d'offre woo Sénégalais yi gën a xarañ tànn ci profil yi signé ñoom ay contrat d'objectif ñu yóbbu réew mi bu ñu deful loolu continuer nekk ci ay gouvernement d'union na parce que gouvernement ñoo nationale ñaari hypothèse rek lay ñëw soit crise am ba pare wala muy anticiper crise